بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرني اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم barke Cheikh Massamba barke Cheikh Massamba barke Cheikh Massamba fas yéene liggéeyal borom Touba fas yéene liggéeyal borom Touba fas yéene liggéeyal borom Touba barke Serigne hamdi u liman kulli bi حمدي وشكري لمن كل بسارة لهور دندو رسقتن غن سرسارة لوسنا يورد وانا بلا سخطنا مزخد اللي من بنا دايما دايما أنصار لله كل لدى أبار مكرمة منها أتهلنا وفي أجام من سارا إن الذين إلى سرسار خد خزنا زيارة فارخا دارين أوزارا إن لزينا إلا سرسار خد خسدا زيرتي فرحو دارنا وزارا إنا لزينا إلى سرزارا خد خسدو زيارتي فرحو دارنا وزارا إنا لزينا إلى سرزارا خد xasata زيارتي فارغ دارنا وزارة يقول عبد الله وهو أحمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعتها محمد بسم الإله وهو رحمن وهو الرحيم خاد الأمان الحمد لله على الكتاب مع سفير مسلم التاب سيدنا محمد خير الورى من خاد خدمته سورا ثم صلاة الله وسلام على الذي مني لا أقلام سيدنا سفينا المخدم عند الذي تذكر لدي خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن العادي والعزاء وجنتي وآله وزعب الأبرار في الحال والمال بالتكرار هذا وخصدي خدمة تخر عين نبأ بها كما تبر نويت من زلام خدمة تصر مصطفانا بيك في تماسر خضرمك من رب البرايا mera bel baraya khadrum tumin rabbil baraya khadrum to mera bel baraya khadrum to mera bel baraya mera bel baraya خدما لمن بجاهي كفاني صدما أحمدها على خروج من درر وكل سوء وأنا إن وخرر أذكرها سكرا ينجر زيدا بسر ولا يجرنا حكايدا حمدا وشكرا لازم لازم البرورا ربي وراء وزلزل حرورا فخمت نازما للذي مخدما مسليا بها على من خدما متجيا كوني خديما الاسنى وان افاز بالمقر الاسنان ملتمسا من مالك أن ينفع بالذي يريد أن ينتفع جعل الله بجاي مصطفى جعل الله بجاي مصطفى جعل الله بجاي بجاي مصطفى صلى عليه بسلام مصطفى نزمان مباركا يخي العذاب كما الذي كابدني زابا أرجزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله أرجزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها سميتها جالبة المراخب سميتها سميتها سميتها سميتها جالبة المراخب سميته جالبة المراخب في آجل كعادل للراخب قد انصرفت للمراد خايلا ما سفائي بيتنا خايلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجيا بين يديك مسليا مسلما على أكرم خلقي لديك ها لديك ها لديك خايلا لديك خايلا لدي دغا لدي دغا لدي دغا لديك خائلا بسم الإله déglu leen manam ma way màggal gu Maam Bambay boroom mooy bis bu rëy bismil ilaahi déglu leen manam ma way màggal gu maam Bambay borom mooy bis bu rëy Ahmadu Bamba moo jihaat ba samp fi màggal gu jar julli diraam julli diraam ba yegsi fi Ahmadu Bamba mooy ki dëddu àdduna yàlla fayee ko bis bu rëy bu màgg na Ahmadu Bamba moo jëfal xuraanu looloo waral muy xaritu Rahmaanu Ahmadu Bamba fi taalif lu yéeme lool yàlla fayee ko bis bu rëy bu am bi yool Ahmadu Bamba fi sagal soo daana

ak yanti xar ak yanti nag yanti gala dix-huit safar yow mi jullit bul dem Tuuba santale Bamba yàlla ngir bis booba yow mi jullit Tuuba jugal dem Tuuba jugal dem Tuuba yow mi jullit bul jugal dem Tuuba santale Bamba Yàlla ngir bis booba bul fàtte sa kaamil ba ba kurus boo ko defee mal jazaay doo furus boo demee bul fa jëlub cartable waxuma laag sàcci rajo ki portable mi jigéen bul def ca Tuuba bopp neen da lay jural sa màggal gi gi sa màggal gi lépp di neen yow mi jigéen mooy bu baaxee sal fa mbaa bon mu rës cër sellal fa mooy faa yóbbu ab pirig bamees yéen góor ñi tam bu leen tafu mbaa mbaa di riisu moytu faawee tokki jigéen ci boo ko defee sa màggal gi dana yàqu yéen góor ñi tam bu leen tafu mbaa mbaa di riisu moytu faawee tokki jigéen ci boo ko defee sa magal gi dana yàqu moytu faa tooñ moytu faa tooñ ba sax nga dem fa defa carte boo ko defee eh, bisu fay ba da nga perte police beeg sapeur bi ak gendarme na ngeen woyof te nooy mel ne tàndarma yow chauffeur bi teeyal te ngay daw na te fum xate te fum xate ah, ah, ah, xaaral nga teggi sa tànk yow sabar bi tayal ta nga rew nan tama nga dee xaaral nga teggi sa tànk yow sabar bi teggi sa tànk te bul fàtte ndénkaane sunu mam fallu mam fallu ne bu ne yaay nga ni yollu yow jaaykat bi jaay set jaay jar bul bëgg riis bay naxe maa ngay wax di wor yow mi jënd bul jënd xaalisu fo da lay jural sama gal ga Sama màggal gi lépp di foo maa ngi taxaw lu ñaan yàlla màggal gi wey ci barke borom màggal gi Sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na yàgg fi bëtum safaan ko ku màggan màggan la turandoo ku ma gën ma gën la turandoo ku sopp Serigne Touba defal li nu magal bàyyi Serigne Saliou ku ma gën ma gën la turandoo ku ma gën ma gën la turandoo man baram Touba man mooy sama turandoo Serigne Touba man yaay sama turandoo Serigne Touba Baye Serigne Mamadou Moustapha Serigne Touba Baye Alhaji Fallou Mbacké Serigne Touba Baye Serigne Abdoul Ahad Serigne Touba Baye Serigne Saliou ku ma gën ma gën la turandoo ma gën la turandoo man borom Touba man mooy sama turandoo Serigne Touba man yaay sama turandoo isa jeey fatim penda lastu kaabe goone jeey Cheikh Ibra Faal Amadou Faal seer jaay biram jebe nga cangaay baay naaru degen faal góor dëkk baay laala faal maami Serigne Abdou Faal jaraama jaraama jaraama Cheikh Ibra Faal